jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yu def dara waaw tabarkàlla moom tam mi ngi Scat Urbam euh, mi ngi branché ànd ak ñun séminaire bi euh, tabarkàllahu ñu ngi jot notes yi muy jot moom waaw ndax moom day am ñuy jaar ci moom ci notes yi <laughs> commentaires yi mu ñu koy balancé jërëjëf sëñ Mbàkke ñu ngi gis euh, notes yi nii tabarkàlla mi ngi ci Scat Urbam bi ànd ak ñun séminaire bi ndax président nee na ñu wàññi rassemblement yi ba ba jëmmi jamono waaw merci sëñ Mbacke gis naa sa message yi sëñ Mbacke démb bi ñu yëkkati jataay bi ci séminaire bi noo ngi woon ci al i'dadu nafsi tey nag technicien bi ñëw mooy Alassane Wade waaw tey technicien bi ñëw mooy Alassane Wade Alassane jërëjëf moom tam mi ngi jaar fii coon jaaroon ak ci euh, Aline Badara waaw di jox nit ñi séminaire bi ci seen kër yi waaw ndax feebar bi moo moo moo moo moo nu ko moo nu ko tere waaye démb bi njëkkati jataay bi dañoo tolloon ci illa man atallaha bi qalbin salim xal bu ñëwaat na foofu mbokk yi li man kaana lahu xalb ñëw na waaye illaa man atallah bi xalbin salim ñëw na jàppaleen ñaara nga noonu ci xol ba dema ci suratul xujuraat mooy saar yi nga xam ne ci lañ toll ci tafsir suratul xujuraat mooy saar yi nga xam ne ci lañ toll ci tafsir borom bi daf fa daf caa wax bi muy toll ci aaya 17 su ma jumut walakin walakin xababa ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum allahu akbar ndeysaan sunu borom nee na xababa ilayna al iman yàlla na ci bokk waay baatu xababa ilaykum al yàlla nee na dafa am ñoo xam ne maa leen tànn ñu am filingu gëmm filingu gëmm ñu am envie gëmm ñu am virisu gëmma mu ne maa leen tànn wa zayyanahu fi qulubikum nee ma rafetal imaan ba seen xol mën koo jël ay waay ween yàlla nañ ci bokk waay waaw ñoo bàjjan ay sa mbeng cttt yooyu yàlla koy tànnal nit def boole ko ca waaw waaw boo delloo ci alxuraan laaya ju siiw la ñuy wax ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni la ñaari bàyyi ñëwaat na foofu xabba baa ngi niyeet encore yàlla nee na su ngeen ma bëggee allahu akbar su ngeen ma bëggee te bëgg gi nekk dëgg ci yéen ñu ne ha mu ne toppal leen ma kii daal di joxoñ muhammad waxoon naa ko bari kii démb na ñun jombal na nañu ba noppi yaa yaa rasulullah jombal nganu fees nga sunu xol ak sunuy bët waxoon naa ko ca daarul muti waaw ca kër sëñ abdu yàlla na ko yàlla yokk wér te yërëm sunu wajuru te may ko ngërëm ma ne leen kero bi maam Sëriñ Tuubaa di tànn maam Cerno di ko yebal ndar njàng mi nekk foofu kenn xam nu mu toll mooy boo amee kilifa gu fees sa bët jommal la dootu am complexe ak tubaab wax la ko tey ana maam Cerno maa ngi ni mën kaay demal man ndar moo tax demu ndaram googee nekk bindu yu bare bare bari waa jaay waag tànn gaag la xew ca ndar ak ñibbisi ga waaw yàlla nee na bu fekkee bëgg nañ ko te bëgg gi dëgg ci nun nan ko toppal ndawam lii ndawam lan muhammadun rasulullah laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum nañ ko ko toppal ñu ne ko buñ la bëggee topp ko lu mu ñu jural mu ne fattabiuni yuhbibkumullah mu ne yàlla yàlla def leen duutu leen bëgg lu jarte bëgg hmm? bu ngeen bëggee yàlla topp Muhammad yàlla def leen duutu leen bëgg lu jarte bëgg te ndax li jarte bëgg ab list la te nit ñi bëgg nañ ko boo topp yonent bi lu ne mën nga ko bëgg waaw boo topp yonent lu ne mën nga ko bëgg waaw amoon naa benn taalibe bu jigéen seet sélection yëpp daan def ci musique gisuma nit ñi yor ko waaw waaye toll mu toll jamono jooj waxuma musique waaye cassette yam ci defoon yëpp yeneen la ci enregistré ci kaw cassette ya ma door ko nag laa ma ne door ko nag na ko yaa ngi dund jenn laay ju tudd qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yuhbibkumullah dootoo bëgg lu jar te bëgg waaw waxtaan mujj ndeysaan mu ngoog waaye boo demee ci suratul mujaadala ci lay mujj ci xol te bëri na ci alxuraan nañ nañ yooyu mooy sunu borom dafa wax ne laa tajidu xawman laa tajidu qawman yuminuuna billaahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man xaadda llaah wa rasuula walaw kaanu aabaahum mu yën aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruuhin minna cey yàlla nee na ñaar munta am ñaar munta am baxal ndox te yoroo cin fab ndox mi sotti ci taal bi ba noppi muy bax yàlla mu ne loolu mun am xal ak ndox moom kay day am ku dox seen diggante ñoom ñaar ñu koy tudde cin wala marmet wala ñoom seen yooyu ndaw ko ndaay xam nañ ko nu ñuy def ba euh, togg sóom bi <laughs> waaye sawar ak ndox noo foog am ku dox seen diggante bu ko defee sawar na ndox <laughs> su la jàppoon nga xam suma ma bu duggutoo diw nga xam ba ndox tàng jër waaw ñu door a fay sawar ne ko baal ko mu door koo baal <laughs> si yàlla nee na foo doo fekk mukk aw nit ñu ma gëm gëm àllaaxira doo fekk mukk aw nit ñu ma gëm gëm xaritoog ñu ma weddi maag sama bu yonent ah mu ne mukk mënul nekk moom kay bëgg gee mooy am walla bañ bëgg gii am rek waaye boole ñu bëgg mu ne yàlla mu ne loolu mënul nekk waaw sawar ak caas waaw waaw bëgg yàlla lool bëggum noonam lool mu ne mënta nekk bëgg yàlla lool bëgg noonu bëgg Muhammad lool bëggum noonam lool mu ne mënta nekk walaw kaanu abaahu même su dee seeni baay ko sa baay bañ yàlla ku sa baay bañ yonent bi ku sa baay weddi yàlla ku sa baay weddi yonent bi waaw walaw yi daa gis ku rey baayam waaw ku ne ci biir saaba yi ñuy julli di saaga sa baay mhm. ñuy julli di saaga sa baay nga continuer ci julli gi waaw kenn mësu koo gis rek laa tajidu xawman yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man hadda llaaha wa rasuulahu walaw kaanu aabaahum même bu dee seeni baay walla seen doom wala seen mag wala sax famille bi yëpp ulaayika ñi mel nii nga xam ne ku bañ yàlla ñu bañ la ku bañ yonent bi ñu bañ la ñooñu kataba fii quluubihimul iimaan ñooñu yàlla bind nañ seen xol yi ni ñoom gëm nañ ko te dana leen jàppale bu ëllëgee mbokk yi kon bu ñu waajal ndaw ñi nan fexe ba seen xol bokk ci xol yii waaw seen xol bokk ci xol yii sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nuy jàngal ci addis ba waaw yàlla ko yàlla fayal xeet wi nee na doomu aadama ñaari bëtam ñaari bëtam ñoo koy jubal ñaari noppam ñoo koy seggal aw làmmiñam ñoo koy firil ñaari loxoom ñooy ay laafam ñaari tànkam ñooy ab postam xol bi nag xol bi xol bi mooy buur bi fa ida taaba almaliku taabat junuudu cey sallallahu alayhi wa kii kum jàngal boo xamul dootoo xam nee doomu aadama ñaari bët yi ñooy xool fim jëm ndax mu man faa dem ñaari bët yi ñu ne ko waaw mu ne ñaari noppam ñooy dégg son yi di segg la ca baax ak la ca baaxut ñooy lantinoor bi ñu ne ko waaw mu ne aw làmmiñam moo koy firil li ci pénc bi mooy wax moom mooy kan soo ne dama ne ñu xam ne tabarkàll wolof ngay làkk nga ne jàmbaal doon ñu xam boo ne njokko njal ñu xam ne na nit ñaari ñaari loxoom mooy ay laafam ñaari tànkam mooy ab postam ne na xol bi nag mooy buur bi xol bi mooy buur bi bu biir bu jubee cër yëpp jub ba tax ci pénc mi sëriñ bi ak politicien bi la la yonante ba gàlloon yëf ya al umaraa u wal fuqahaa u politicien yi bu nu jubee rek pénc mi jag sëriñ si bu nu jubee rek pénc mi jag mu jax tàkk waaye ñaar ñooñu ne bu ñu jubut mu leen fexe ba am pénc mu jub euh, séminariste yi ma ñëwal leen ci tomb ba am solo mooy ginnaaw bi ñu déggee xol ak li ci yàlla wax nan la nit di xamee ne xolam moom mi ngi dund alaamaatu xayaatil xulub loolu ku ne war na di ko seet waaw waxtaanoon naa ko ca centre ba ndeysaan Aminta Diop kolle ni ma waaw lii moom <laughs> duñ ko yóbbu barab sàng ma ne ko ah, demoon na fa di nan la nit di xamee ne xolam mi ngi dund alxuraan nee na innama almuminuuna allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum mu ne ñi xam ne seen xol a ngi dund fu ñu tuddee yàlla seen xol tiit waaw xam nga léeg-léeg nga dem ci dëkk bi foo xam ne fii feu rouge bi dafa dafa lakk boo fa jaaree suba ngoon ci bokk yam verte bi du takk orange bi du takk rouge bi du takk dafa paan ki nga xam ne xolam daal ni ci biiram te paanut paanut bu déggee ñu tudd yàlla rek xol ba yëngutu gis nga booy chargé sa téléphone bi li lay xamal ne mi ngi jël li lay xamal ne mi ngi jël <laughs> boo ko ci branché day daal di day daal di réactionné wu nga xam ne kon téléphone baa ngi jël xol boo xam ne waar waar boroomam du tax xol ba tiit yàlla nee na xol boobu dafa dee innama al muminuun allazina ida dukira allahu wajilat qulubuhum muy benn wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadaduhum imaana ñaaral bi fuñ dégge ñu ñu tudd ay yàlla yi ñu dol ñu dolli ñu dolleeku imaan mu mbokk yi bu fekkee man mii di wax ak yéen ñi déglu fajar gu jot ñu dolliku imaan tuuti bu yàggee fu nuy nekk xanaa fa gënal suñu bokk gënal ñu gënal suñu borom zaadruhum imaanan ndekki bët bu set dañoo war di yokk ci imaan ñun nag bët bu set dañoo bëgg a yokk ci chiffre d'affaires yaxsabu anna maalahu axlada ñun yokk ci chiffre d'affaires daf noo gënal yokk ci imaan ma wax la ko tey yokk ci chiffre d'affaires daf noo gënal yokk ci imaan ndekk yokk ci imaan moo gën naka lañ koy xame mooy wajilat qulubuhum naka lay koy xame zaadahum imaanan ñaareel ba wa ala rabbihim yatawakkalun wéeru ci seen borom kii la xolam dund mu wéeru ci seen borom ñett yi moo nekk ci moom ñu xam ne moom xolam a ngi dund wajilat qulubuhum ca ca ca ca ca njàng ca waaraate wa zarluhum imaanan ca njàngale ma wa ala rabbihum yatawakkalun ñu wéeru ci seen borom waaw maa ngi ci alaamaatu xayaatil qulub séminaire si ñu ngi ci seeni kër sama technicien bi Alassane Wade moo leen di jottali wax ji ñu toog ci kër yi ñenn ñi branché ko ci télévision yeeg ñoom seen yooyu di nu dégg waaw merci mu waxaat feneen ci lii wane ne xol baa ngi dund nuñ ko xamee wa bashiril muxbitiin wa bashir béggalal al muxbitiina mbakkar feggukat yi al mooy mbakkar feggu allahu akbar lan mooy mbakkar feggu mbakkar feggu soo demee ci dëkki ndaw ko yi fële ca ndokkumaan ca Kaffrine <laughs> ca Kaffrine waaw dëkku ñoom Iran daw Iran nag boolewuma la ci yow parce que tubaarkàlla waaw waaye <laughs> waaye ba dima ci dikki ndaw kundaay yi doon gan soo doonee gan su ngeen doonee ay gan ngeen mat fukk mbaa juróom dañ leen di woo ci kër yi ngeen di añ ñu ne Baye Mor sama papa nii ngeen ñëw añ ngeen añee ba noppi ñu feneen Baye Mor sama papa ngeen ñëw añ kaw gi loolu moo fa am ndeysaan affaire bu neex waaw day dund gu neex xayaatun tayiba moo ne ci kaw gi waaye bu ñuy añi ñun ñëpp nu jëm kër imaam Ablaye Ndaw <laughs> soxna Ndaw da koy da koy tibbal tuuti def ko ci ndab lu tudd gamel gamel daal di koy ub tegal ko ca poojub ginaar léegi nag ñun ñëpp nu bokk añ bi imaam ndaw bokk ak ñun añ bu ko defee bu añu tëdd añ leen waaye añ leen di soññaate bu ñu noppee nag ba ñu wooñu kër baay móoru xujja ñu dem di añi foofa jàpp soxnaam nag daal di koy génneel añ bii mu ko tibbaloon lu tax parce que imaam Ablaye Ndaw du mën a ànd ak ñun wër di añ ñun gan ñi nag ñooy wër di añ waaw imaam Ndaw nag tabarkalla soxna si na ko najaay mun naa mun a ko wuyul ci néeg bi nun la koy wax wuyul ci néeg bi imaam daal gaa gaañ ma ñëw <laughs> bu ñëwee fekk fu ñu ubal ko ci gamel bi poojob ganaar ak lu mat fukki tibb ak juróom-ñett yu ceeb imaam lim bokkoon ak nit ñi mu ñëw mottilee ko li loolu la tudd ci ci ci ñiy def ilmu tasawuf mag ñi doon jàngale xam-xamu tasawuf luñ loolu la ñu tuddee mbakkar feggu mbakkar feggu mooy ànd ak nit ñi def lu baax di def ci suuf lu baax lu ñu yëgu te ne cell ànd ak nit ñi def lu baax tey def ci suuf lu nit ñi yëgu te ne cell ak am ñu ko mën nag ñoo ñooy mux bi tuune ñoom la yàlla ñoom yàlla ne yónnante mun naa mun a ko na nga wax ñooñu ne kontaan naa ci ñoom informé leen ma leen nga ne leen kontaan naa ci ñoom ñan al mux bi tuuna allahu akbar nga ne ko firil ñu ko mu ne allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum walsaabirina ala ma asaabahum walmuqimi salaa wa mimma razaqnahum yunfiquuna muxbituuna yaa ngoog ñooñu ay mbakkar feggukat lañ buñ leen waaree la ñuy jële ca waaraate wa bokkut ak la ca nit ñee jële ñoom hmm? bu ñuy waaraate ñoom la ñuy jële ca waaraate wa bukkut ak li ci nit ñiy jëlee looloo taxoon ñu saaba yi dam ñu ne Seydina Ali waaye kaay dañu la am question bu lay laaj Seydina Ali ñu ne ban ñu ne ñu ne ko est-ce que yonent bi daf lay daf lay beral ay cours loolu lañ ko waxoon mais yow xanaa Muhammad daf lay beral ay cours mu ne ci lan ñu ne ko ñun laaj ñun jàng nga gën ñu ko dégg mu ne beralu mu benn cours ndax yàlla santu ko ko ma ala rasul balaax waaye mafhum la rek ndeysaan ca suñu waa wa ndeysaan euh, sëñ Mansour si borom daara yi daara ji alxalifa ndeysaan ku munta am mafhum ci mantuuq nee na jërlu ngay jàng bul sori nee na mbakkar feggo yi wa saabirina ala ma asaabuhum lu leen dal lu leen dal dañ koy muñ duñ jàmbat ba ñit ñi jéppi leen ñu dooroon noppi yàlla nee na am na ñoo xam ne duñ jàmbat duñ jàmbat waaw nañ ma baal ma misaal njàngale mee ko indi dana ma ànd ma ak sama xarit bële ci Louga mbar gu siise waaw mbar gu siise moo doon jëkkëru soxna mbayang siise ma génn àdduna fan yu yàggut nu ànd ci génn kër suñu benn xar bu ñuy wax Ousmane ma nga ca dëkk ba Ousmane Diop ma takk ay weer xam nga ma li may takk lunette bariwut ndax daf maa jàppul wala kenn ci soxna yi moo may wax ne jàpp la waaw <laughs> fu ma takkaa ay weer rek mu ne xaw ma lu xew te nit ñi dañ naan ay weer daf laa jàpp waaye moom nee ma jàpp la <laughs> tubarkalla ma yem foofu ma tekki weer yi teg ko genn gone jël ko di ko natt mu rëcc ko mu toj ma ramassé weer yépp ak kii ak yu def sama poos ni cel machine mbërgu si si di jooy waaw machine mbërgu si di jooy <laughs> waaw ma xam li muy jooy ñu ne cell ñu ne cell ñu dem ñibbi xam naa keroog foofu am na fa lu am solo lu mu am ci wàllu xalaat waaye daal jooy na fa jooy yooyu tabarkalla waaw mu ngoog Eh, kon wa bashiril muxbitiin muxbituuna yu sunu borom di ko firi ida zukira llahu wajalat qulubuhum wa saabiruna ala ma mu teg ci wal muqimi ay taxawalkati julli lañu du ñu ay julli kat wal muqiimi salaa waaw du ñu ay julli kat de taxawalkati julli lañu ndax julleeg taxawal julli bokkut xàmmee leen ko omi maar sax na min fi xoona lu ma leen wërsëgale ñu damp ca jox seeni bokk lu ma leen wërsëgale ñu domp ca joxe ah bon waaw waaw am na ñu mën a domp joxe ma wax la ko tey wa mimma baat bi loolu lay tekki wa mimma rësax naa am ñun fiquna lu ma leen jox ñu domp ca joxe am na ko xam ne ki day defe ne day xaar ba bari la door a joxe <laughs> sunu baram ne joxeloo ma kenn lam am lépp waaye ku ne mën ngaa domp ca la ngay joxe inna lillahi fi ardihi aniya wa hiya al yàlla nee na sunu borom dafa am ci suufam si ay ndab ay ndab nee ndab yooye mooy xol xol bi gën yàlla gën a bëgg ci ndab yooyu nag mooy xol boo xam ne arraqaha wa asfaha mooy xol bi gën a lewet te gën caa set ah te gën caa dëgër moom la gën a bëgg waaye xol bi mu bañ mooy xol boo wow koŋ xol bu naqari deret xol bu dëgër këng nee na bëggul loolu mu ne kon nag nooyal leen seen xol yi ci seen mbokk yi di sànn seetetet waaraxaa yi séminariste yi tabaarakallahu te ci kër yi ndax feebar bi yàlla na fi jógeek jàmm yàlla na dem waaw te bu dellu siwaat loolu moo waral ngeen ci kër yi nu na fii ak sunu techniciens yi di jéem a continuer ak yéen séminaire bi incha allah bu nu yàlla mayoon dund ba ëllëg yàlla dund ba ëllëg te weesu ko nu dellu siwaat ci fi nga xam ne fi nu teg sunu baaram yàlla nu yàlla boole sàmm yàlla nu yàlla defal tawféex